tukki ba Cheikh Bamba defoon ca jéeri laa bëgg a way boobi bu leen ko réere moo gën a wam bam tukki woon ca jay sasi ban baa ko wax ca way waxaama ak sasi man zanna sayri xibbahaami ak sasi misla masiiri rë'sahaami jay sasi sabatat kawnuhu jahulan humraa bal huwa tatyiibul xaliilil humraa lam yaku sayru ak sasin siwaa jasaa man li yaqaada baxdu waxdan najasa ku jortu seen yamoo ga jaahil te mbaata sa xel ma neexul kon soobu naa ko tey ci laylatul xadar yal nay mbégum murit yi ak ahlu badar ci waxi seex basiiru bun sayxul xadiim laa yóbbaloo muy minanul baaxil xadiim ak téere bam dëppool irwaa un nadiim li cheikh ahmadul lamini moom xadim ak waxi cheikh xamsatu moom ma fekke woon yooyee jataay ku baax ka moom la àndaloon doom jaama leeral lépp moo di xaalim ku baax baax la fonk nay jataayam déglul ma wax la baatinub tukkeem ba ak saahiram sa moom donay yonen ba natoom yu diis yam yóbbu woon ca géej ga bam jeexale la bàyyikoo ca géej ga ba mu ñëwee la andi mboolem asraar ak barakaat boole ca mboolem anwaar ya géej ga xam ñu ni ko jàllal jéeri boole yoyam yóbbu sa kër ngeen reere yaa ahla barri teg ca ahla bahri moo jooli barri la waxoon til barri bahru saxaa'i moo di géejug tab ga réew mépp gi jal nañu ngir tabam ga Ken abbatul ken waqul ken khifatul xel yépp dal dootunu dox nitul ken abbatul ken waqul ken xiifatul xel yépp dal dootunu dox nitul mooy baatinub la tax mu dem ca naar ya semmal na leen bay nangu seen hidaaya foofee la nottee lam noton ca géej ga ak cër yu rëy yu doon yawan ca naar ya sahir sa ardo juñu naa dem ba gori diw rek ci mbaaxaan daa ko wax mbir yu bari Seex Ibra moo defoon ni lal ci saaku sëf ci gëléem muy addiyaam yéem naa ko bam bàyyi koo ngaay mexe ñëw tamaaka sa guddi waaja reju leen fu naaka war maal jaa taxoon ñu muur ko moom mu ni ay fital la dem xibaar ko mbaaxaan mu def bataaxelub kalaame yónnee gouverneur ñoo reyub seytaane keroog boroom ndar daa di wookum yilifoon te jox la kanto ngóole seen la woolu woon ba ñépp teew mu dal di leetar ba ko ba woo mbaaxaan ja bon gi leetar ba mu àggalee ne mu laaj la sa xalaat ba laaj ko buur siin moom mu weddi dal di teg ba kanam ak manto teg ca ak palam dara xamul ci lii mu wax yëf ya xajam ñu dal fab karte ya boo leng mbaaxaan mu jiite leen ñu jëm ci daarul man naan buur kumbandoo seen bàyyi koo fa jaari fasay xunal xadiimu ngir siyaare diglul ma wax la kero buur seen bàyyi koo ci bii jataay jëfam ja bamba fay na ko ma nga giseeg seex bamba daarul man naan falañ nuyoo mu wax ko kàdduy mbaaxaan bam àggalee sëriñ bu mag ba laaj ko lu tax nga teg ca loola nee naa ko jasa jasaa'i bu ñëwee kenn ma fay dama deful ci saa borom bam di ma fay te mbakke yow ca booba bis doo jeexal boo desalee nga geesu dal may ñaagal seex ban banaa ko bun demee yawmal qiyaam des na la fay boole la faak aw ngën ji jaam danaa la booleeg gaaye seen kanam di weex kenn du la génne moom fayam gaa gën a neex keroog la ñaan seex bamba nek fa mbaaxaan bañ mu dugal ngànnaay ya daarul mannaan seex bamba def ngànnaay ga ismullaahi rahmaanu ak rahiimu nihmallaahu keroog la mbaaxaan di wisit si daaru këru sëriñ tuubaa ga ñépp waaru keroog ba mbaaxaan di wisit si daaru këru sëriñ tuubaa ga waaru fu mu bi xool gis fa torox na moo kum àndaloon billahi mu dal ni xim waxam jële duur la mu ni yoloos di dellu lii lu diis la bam dellu see ñu wóoluwul du baaba jox ko waneen yoon booba moom tubaab ba fexeel mu génn réew mi dem sarsaara nga nangu mbooloo ma ñu dem sa daara gën a yaa ci réew mi dolli sun noteel dogan ko nag sëriñ bi noo ngi ci noteel fekkena cheikh seex bamba di waaj batin dinañ digal ci mustafa ak borom kun booba la am juróomi weer ci réew mi wanaat gannaaw njaboot jang mbooloom mi gaaw la jànqaat ca ginaaw tisbaar ja di wuy jaar ndar kooka mooy jàmbaar ja fukk ñenent weeru awal la génn daaru romb waa mbakke bawal fanaani nga bu bam xëyee bisub dibéer Lajam tiwa wan kum gërëm nga faw xabuur yëg tiwa ti wan jël saxaar ga wuti ndar ca la fanaan te suba teel la wàcc ndar seex siidi yaa mbooloo ma ñoo koy teeru jaar ba la àndandoog mbooloo ma kër góornóor ba ba mu dikkee fekk na leen ñuy yéegal nguur france sagar wa nguur gay màggal mu ni wërëñ wan ko ginnaaw moo tuutal nguurug Palestine waaja xol ba neexul gouverneur ba mer di xultu naa daa war a xool ni bii dara poo moo yilis ba génn gaal dex ban ba naa ko boo fexee baa xool ko nguurug France tey jii mu yam mën naa ko mu dal ni xiim teewoon mu tontu boobaa su ca baat nguur gayam fa boobaa mu dal xiim teewoon mu tontu boobaa su ca tegoon baat nguur ga yam fa boobaa ñoo gën a weg seex bàmba weesu wuñu xumbal fu mu leen rëdal ñu yam fa ñoo ko ko ragal moo siñe aat dekkere ba mu ginnaate ci réew mi jëm ca naar ya ndaw gàcceeti ba mu àggalee sëriñ bi dem fanaani kërwul du baaba mbir ya moo kiimaane talaata ba mu xëyee di jëm ca naar ya jaar dagan ak mbooloo ma ñëw ba gaaya ba mu ñëwee ba jukku soobu gaal ya jéggee ya. ya, ko ndox ma dal di teer fanaar ya nit ak juróom ci weeru awal moom la yamal saawaaja mooma ko xamal ba mu demee ca naar ya jël seen aada laxas di tekki kooka mooy mbër waada bam laxasee ba yegg ci biir sarsaara la soppi lii jasaaka sun mam jaara keroog ba seex siidi yenaa ko waajal ngir sàmmi seen aku batal. dumaa ko baatal seex bamba naa ko moom demas la gàddaay jëm ci kudul yàlla kilee ka matuwaay gàdd ga ko bamba yaag nuy jaaxal xanaa du kii sëriñ bi ten koo jiital seex bamba wax leen ni kudul yonen baa doyul ci nun wasiila sañ na boobaa baana li kulli man lahu maxquulu أن وسيلتي هو Jawab جواب شيخ سيدي ينقل نريوما kangam ya ak gadd ya won ca réew ma gadd ga dem seex bamba des sarsaara naar ya di jébbulu mu am fa daara ña ba won sarsaara ma ña ngay tagoo alkande ñoom ca réew ma loolaa taxoon ñu del siaar sarsaara ngir di maroo seex bamba mum mam jaara Lanat liyal qulub wal abdanu, taalaman il biidaanu wa suudaanu foofee la naar ba abdulaahi jébbuloo bokk ca daymaan ya fa jëkk a jébbulu moom moo ki bokkam ñoo defal seex bamba Nawana najaar ya defaloon yonen ba buur ba joxan njool màkke waa lamsaar ña mooy ko joxaan njool mbàkke waa daymaan bi la tey Madina ak Tuubaa ay jàkka loolaa taxoon Seex Bàmba ca way min ba ni day maana yëral ca way waa ahmadu moo ko may maqaama tenkoo gi soowu loo fa gis daama soo ko xamul diglul ma wax la ab xiseem mbaate nga yer téere ba iri waa un nadim sayxul xadim mooy teewoo ab téere ba di ko wut lu ndaw la far keroog la wër ka góom nga gis sa ba def ko adiya ngir bégal Seex Bamba jox ko ndawal sëriñ ba naa ko nee ko na ma nuyul yonen ba moom gëm naa ko na ma nuyul Seex Ahmadu Tijaani xutbul waraa naar bi le moo kiimaane te jox ma jëhëran seen jawaab yëppul laha loolu la waxoon ndawal sëriñ bi xab laha kero ba Seex Bamba jotee ca téere ba la am jawaab ca xut bu baag yonent ba keroog la am darajatul mushahada faf te giseeg yonent ba am na maxraja ëskëye seex bamba borom xajaayib amul li ma ale mooy borom manaaxib diglul ma wax la yoon wa seex bamba demoon ca waa jaraar foofee la naar ba dëkke woon muhammadul buddu gannaaw bam faatoo seex bamba jaal na koy mayam mooyaatu ñooñee la Seex Bamba defal xar baax ya moo ubbi seen teen ba ñu joo ca baag ya deewuñu naan lu dul ndoxum jëggaani bidub keroog lañ bàyyi am rootaani semmal na leen naar yépp naa ko maalum gàgganti leen aalim ya naa ko yaaxam naar ya gagoon ca inna laaha mahanaa moo leen ubbee ñu naa ko yaa am mahnaa moo leen xamal mahnaa yu baate alquran suka yede ya yo yele ya wer moy ramadan fofé la noté lam na don ci geej ci ram ba na dun ba melni amdi wa sukri la waxon bam notte taxam ya fess na del bam fa soté neena payam du yam du jeex day wala ngaan sotine darul muhdi tay bagawan bam fa ba di del ci ar sarsara ya ko sant ñew tartara foofee ca sarsaara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus bi waasitir rasuuli hindallaahi mu jox ko seex bamba bismillaahi ngëpp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëpp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ne mba mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la si laa yaxtinul xulaatu ilaa xadiimihi xalayhi llaahu salla wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa haasa nisaama xayra noorin xat xalaa ba mu dikkee la jàll sintul muqtiin moo ci tereem biis ni rabbil aalamiin foofa la naar bu bon ba tudd naaji yor jaasi yoot sëriñ bi moom naaji mooy ka ñëwoon jébbu lu mel ni gaaya mokkoon na lool ba daana rotti ndaaya ba jébbuloo la ko sëriñ bi geesu jox bayit yii teemu tuub te ilaa si waaya durruka seytaani maa alayya min sultaani allahu rabbi wa nabiyul mujtabaa salla alayhi man hadaahu wajtabaa xilli wa hibbi wa abaa madarrati waraama min rabbil wara masarrati nee ku misiyeer ba yilifoon seen réew ma moo ko joxoon xalaat ba ak pexeem ma xamsoon na alfan ci dërëm la ko diggoon musal ko tuut bambaa ko jox la ca desoon xëy guddi gëm ñëwee ba tiim seyxul xadiim dogon ko nag yërmaande day tàkk ba giim muhammadul lamin ñang ak sëriñ mafaal budul kon ak sëriñ bi naa ji mel ni xaal moo leen ni ngeen jéggal ko yéen lillaahi wallaahi mooy donay rasulullaahi yëkkati xaalis lim bu tol ni boobaa joxaale naa ndaw mu waaru boobaa xam naa dañoo jaaxle ca waxtu woowale moo commissaire ni bambaraw na foofale so doon pexem naa ma mën naa sotti kon du bawoo ca géej ga ñoom ñoo tuuti su xalamoon bañ ko andee ndakaaru def ko ca seen néeg ba mu gën faataaru mbaa mu xalaat bañ ko defee ca néeg ba boole ko fa ak gaynde ga moom tubaab ba mbaa mu xalaat bis bañ takee jëmam ja soldaar sa sépp tiim ko yor nga ya daa ci wut bañ koy ba max ca yeer ma wan ko gannaaw ndekon mu xee pexeem ma kafafta dural musrikiina abada moo tee ñu naagu duñ ko man ba abada waylun lakum in lam takoonoo la waxoon bis buñ dajeeg boroom ba xam ni ñoo dangoon fama lahum xadan si waa ankaali ku mel ni ñoom ëllëg ca àndaale tuuboo lahoo bi qul huwallahu ahad li aaxiri suurati min saakal hadat tuuboo lahoo bi diinihi lislaami diinu nabiyi almustafa alimaami rafaha ahlu badrin alislaama wasaatahu alfujaara wassalaama ñoom alku nañ fi saahirin wa baatini yanam di féewoo saahirin wa baatini gannaaw bu lii xewee la door ñëw xumaak fekk mu góob mboolem mbayam mépp ba jaag xibaar ya xew xumaak ma nee su na mbooloo maag ñëw ku daalim ndoxum neel ma xayrul bi yaata woon ban baa ko ñaareel jaxuma ak jalaxe woon booba lebe koor ba taxoon mbooloo ma gën di saalit bokk saaw ca réew ma jëmul ginnaaw seen jur ga faf di faatu mbooloo ma loog seen wëpp gën di yaatu ñu sàkk mbooloo njit la mel ni werekaan mang koy jambee njol màkka mel ni werekaan mang naa ko yaay donay imaamul yaa wal mursaliina say ngëneel moo gën a yaa keroog la naa ko nooy njabootu Mustafa bekkoor bi moo tax kenn dawul marwaak safa te mbàkke ngay donay rasulullahi waneel sa doole tiim ngelaw li yaayi keroog la daam sotti ba fépp walangaan xur yépp taa ndoxum ngëneel maa walangaan xiinul nga leen jaare fa dal koy naxtaay demul ca biir di leen lépp ci jataay sotti diwal ba mujj def tiitaange bañ di ko ñaan mu yam fa ndaw naataange keroog la fa fakaan xàqan jox leen loolaay mbégum julit yi yépp bég leen bam ne mu naa wal ya daan tu sépp tooy ku wan gannaaw bàq ba gàncaxam ga gooy kenn du la roy xanaa ba tax mu tooyal xoli mbaa mu taw ba tooyal foofa la sax baag ak bala ba woo del si ci rew mi hassasi karo ba tax ibra dikke andale rapport nguur ga mom la fam nga balé tek na dam wañ na ba nopi jital dina rasulullahi mam daa jiital foofa la lamp tok ba bis ba dellu si door faa ba woog serign bi dora a bam tàggutoo ca nar ya ñépp tiislu kàngami rew ma mbolé sen di ñaanlu way xam yowoon ca réew ma ñépp maase di tagg daam banaa ko xëyru naasi keroog la seex bamba waraat ca gaal ya soobu ca moog mbooloo ma wàcc gaaya sab xiina ci ir jàlla bamba jiital ñépp di haafis buur ba nee la jiital teg ca geneen ni gog rasuulullaahi nekk ca biir ñu naa li si liwaayi gaawu la yendu gaaya moog mbooloo ma sax fa ba gaawu del si mo mbooloo bal ma xibar la ngam ga woon ca gaaya mo raw ko rek tabaski ma nga gaaya nag ak naaga mom la gaaya boole xara ganar lepp la gaaya daane bisub kero les di defal borom neel def nañ ko jox cheikh bamba booba lay misal bam ga najee buru bindeef fi rabbana cey li ka xoot wallahi mbakke soobu naa بثت الكريم واتاب للقراء ولا زال كالسراج في القرى mu bàyyi koo fa jëm si ndar jaar dagana fekk na seex tafsir mu baax ma làqu na jaar fa barab ba wut si ndar seex ibra faal moo yor nga nam nga ñeenti fan ni ma rijaal moo feelu waa gaaye ku nekku feemam mënee koo daan bamba moo di waayam bam fa amee ñeneen ci fan ñëw lu galoo ba serigne sëriñ masamba soxna yeesuloo fala fanan yandu fa jall nga ñax ca barabab abdalla jang mom nga ñax fala fanan xeye fa jëm ci deru njaay ca teelu bemba seex asan moom jare njaay ku baax baax la dam defon na ko imam. Darul xudóos lu jitu géej gi moy imam fala fanan yandu fa jall ko ki job cheikh modou mam ko dalal ma sant mooy maami seex basiiru fatima du maam donay basiirun wa nasiirun ken du moom fala fa naan yendu fa jàll doriga mu mel ni foofa ñooña am daraja sëriñ ma tamba di bàyyi seex job la dalaloon mooy bàyyi soxna mbee jóob way juru sayxi murtala am sayxil khadim yal na fi yàgg moog magam yi ñépp yéem fala yendu fa ñëw kër baatin cheikh modou job la dalaloon kër bësin moy maami señ danum señ masamba amnang ngeureum sax ci sunas yonen ba diglul ma wax la bam bawoo kër bësin jëm si te yeen leppam di dox ci bëtin di beer ci rakki gàmmu lenyau caien sësi la ñew ca yeen baat ma xaama la sësi ba mu dikke la san ci daru rahman nek ca mo ma wul kañaan Buru bajalaf motor koron bay doore ku ñew ci da mbolo ma da siyaare mo tere wan mbolem jolaf ku ñaagal ab donga mbaataalu be kooka baaxul jaraf ma xet la balon ci pey ba ka ca yes ku soxoroon la ya yaa ya sal biladi ya muhit khul baynana wa bayna habdika ma wala mbolo ma di muslu waja moy ka yées ci naati ka janni te xuloon mbooloo wan ko gannaaw fess del faf ci rewma ma loolaa taxoon seex bamba san ci daru mbooloo ma fees fa del ñom ñu lola loolaa kon ca bal ta din ñu woko muy mu wi ji njëreem hunaka leen hunaaka la waxon ca boba law xaayaloo ci suñ xamone ni boba lay doore seen torox te wey ba abada ndegum sëriñ bi moom di wey ba abada raamoo ma siiri la waxoon te booba law haaya noo cay suñ xamoon ni booba lay seen torox te wey ba abada ndegum sëriñ bi moom di wey ba abada fukk ak ñenent yow ma sabti muwaaram fii la sasin la bamba génne ca këram keroog la ñëw bel jës bamba woo ca yéen kerja ji ndaw la tekki bam mu takkee ca yéen foofa la gonte takkusaani gaaw yegg ci lu mbel ca guddi booba gaaw pëlam ba sañ këri koy berndeel moom bokkul ak demba mu am ma yeddeel bam fa ba woo di biir ja ñëw ji fa la leetis baar ja moo di waaji foofa la buuna albureeg njabootam delloo jalas seex bamba jàllang bootam Moomadu Saw buurub Bawol angaase moo wutoon seeg buuna jaay fasaase bam bàyyi koo balloo ji jëm daarul xalim ma ngay nuroog yonen ba doon baxrul xoloom diglul ma wax la bam ba woo daarul xalim diwuy ji njaareem kooka mooy baabu naxiim keroog la jaar du la fa kër Moomadu Saw ma wanteeg buuna njaay foofa la aw fa la julee tisbaar ca takkusaan ja ko ka ko kamu mo di waaja ca takkusaani suuf la ak si fi yow mi lis na ini la wàcc njaareem fekk na wa ga taxaw di teeru keroog kumaandaati wi wino koy teru mo dal di jël seex bamba yóbbu kaaba mbolo ma fess jàll fa buntu kaaba di dugg kay genn di dox di waxu bu jant so njang ma ñepp xaju yaasal jalaali wal jamaali dengoo mboolem murit yi yépp maase dengoo dootul nelaw jabar janaa ko génneel maarab bu bég murit yi ñu ngi gàcceel loolaa taxoon